mbokk internet yi ñuy topp fii ci 24actu euh, ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen ñëw ak yéen ci émission bu bees tàq muy les bonnes adresses les bonnes adresses nag bu leen ko déggee mooy émission boo xam ne fépp lu baax nekk ci dëkk bu tedd bi dañ leen ko toppal tey nag ñu ñëwoon fi nga xamante ne nii mooy Mbaor Couture Mbaor Couture nag boo ko déggee ñu fi fekk mooy Abdou Lahad Ndaw ñu ñëwoon fi xool nag li nga xamante moom la ñu tay في سفر حماني على ماهر مع الحبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر حماني على ماهر مع الحبس والسفر سفر هماني على ماهل مع الحبس والسفر فلاي بكوني عاد ربي خديمه هجيب به لجاد من عن النفر من لو هبت بالسفر say téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp partout dans le monde waaw tey nag da nga ñëw fii ci Abdou Lahad Ndaw Mbawar Couture marché Ocass centre commercial ma Samba Dieng en face parc Guinaas waa gis nga ko nii dañuy waajal màggal gi te xam nga ku ne ku ne Touba ne màggal 18 safar mu nekk suñu yitte buñ koy waajal dañ koy waajal ci fànn yu baree baree bari ba tax na yi nga gis yëpp euh, màggal gi moo ko waral ay modèles yoo xam ne model yu bees tàq la yoo xam ne yaakaar naa bari na ci yoo xam ne moom waxuma la màggal mais ku ko teeroo say gan daal di nga di nga di say dinañ kontaan si yow. kuy wax Getzner euh, rek. daanaka ñoom ñoom ñoo tax. ba tax na bazin yi bokk na ci li ci ëpp mais xam nga ku ne màggal màggal du tabaski tabaski benn fan la ñaari fan ñetti fan. màggal nag dafa gudd. ba tax na soxna yi dañ koy waajal. ci ci ci façon qualité yére yu bari yu bokkul différent qualité yoo xam ne. parce que dina am yoo xam ne moom la ñuy yendoo moom la ñuy teeroo gan ñi ak yi ñuy terale gan yi ak yi ñuy sañse ba ci yi ñuy gungee gan ñi sax dafay am ba tax na comme période bi dafa a partenaires yi pour ak cuub yi palmaan tàkk yi ba ci jaxas yi ci brodé marigué yi ngay gis ni ñu garniture ko ba mu rafet yooyu yëpp dafay am ba ba ci comme bu dee bëccëg yi ñu xam ne dañ koy yendoo mooy li ñu naan xaftaan dafay nekk 3 pièces dafay nekk jiital nekk nekk euh, nekk jeesneer gis nga ko nekk 3 morceaux am na ci yoo xam tamit mais ay près du corps lay doon xamale xamale góor ñi dañoo tàmmatul sol yu rëy mais dañu bëgg loo xam ne dañ koy mën a sol nekk en l'aise pour teral gan ñi di va et du leen kii du leen yàqal dara ni mu amee Getzner alors noonu la amee tamit ay super 100 ay fil à fil ay tissu coton yoo xam ne yëpp mooy yi ngay gis ci kaw noonu comme ça buñ ko yu ci nekk rek am na fi ay façon yoo xam ne façon yi différent daal yoo xam ne góor ñi tamit kenn bàyyiwu leen kenn fàttewu leen ginnaaw Mbaor Couture daf fi nekk pour ñëpp c'est parce que muy góor muy jigéen ñëpp lañ fi nekkal ku fi ñëw daal indi fi sa basin wala nga indi fi sa tiise bu di doon euh, lépp loo ci bëgg dinañ ko ci mhm. mu ngi nekk marché Ocass Pàcc Ginaar xam naa ñi ko miin bari na en face Pàcc Ginaar bi rek centre commercial Massamba Dieng cantine A11 bon numéro téléphone bi mi ngi nekk 77 213 10 13 77 213 10 13 mu nekk numéro téléphone bi ndokkeel client yëpp ci confiance bi ñuy jox di ko renouveler chaque instant ba tax na ñun ak ñoom moom ñoo far kon dañ leen di souhaiter màggalu jàmm وعبدا له به على من به لقاد صفوا بلا قدر فساغة خير الخلق عبدا قسائدي